tàmbali bi yoonu murit mooy wacc aada bi nga xam ne moom la nit ñi aadawoo aadawoo koo xam ne jël nag aada yi koo xam ne yàlla dong la jaxasool léppam yàlla la aada jooju nga war a jël bu fekkee nag wacc nga ko dellu ca aada ja nga xam ne moom la nit ñi baaxoo mooy aada ja nga aada woon da ngaa mel ne ku duggoon ci lislaam dellu dellu murtat nag génn ci biir lislaam mu ne ndax isil muridu laa yuridu abada xeera rida rahmaani xesu qasada ndax murid dëgg-dëgg du nam lenn lu dul ngërëmal yàlla dong lay wut ak fépp fu mu mën a jublu mu ni wasful muridi tarkuhul irada li ma ci man yafalu ma araada mu ni melaw murid mooy bu mu am lenn lu mu bëgg bu mu am lenn lu muy bañ amul lenn lu mu namm dafay bàyyi loolu lépp ngir jëmmi yàlla bëgg-bëggam ak jubloom lépp di bëgg-bëggu sëriñ bi ak di jublu sëriñ bi moom ci boppam mu bañ a am bëgg-bëggam bañ am jubloom mu ni man lam yurid shay'an siwa mawlaahu yasil lahu wa xayru awlaahu képp koo xam ne wutuloo dara lu dul yàlla te mooy kooku nga xam ne wacc na ay bëgg-bëggam wàcc ay nam nammam fekk ki nga xam ne yàlla dong mooy bëgg-bëggam te xam na yàlla te àgg na ci yàlla mu def ay bëgg-bëggam ay bëgg-bëggam kooku faw mu àgg yàlla te suñu borom dana ko jox mu bëgg ay mu ne képp koo xam ne aju nga ci ku àgg ci yàlla da àgg waaye képp koo xam ne danga ngaa aju ci ku àggul ci yàlla dañ lay dog doo àgg mu ne nag képp koo xam ne yar maanaam am wutuloo ay teggiini tarbiya benn jamono ci kanamu benn sëriñ nee na da nga dajee coono ëllëg ndax képp koo xam ne amuloo sëriñ bu lay jubal seytaan rek mooy si sëriñ foo mën a jublu mu ne nag ndax sëriñ bi bu wuteeg yonent bi mukk mu ni kon képp koo xam ne cheikh bi nga xam ne cheikhul murabbi la képp koo xam ne am nga ngërëmam da nga jëriñu adduna ak mu ne kon képp koo xamee ne sëriñ bi digal na la ko nanga nga topp ndigalam na nga àgg ci yàlla lépp lu mu la tere bul jéng jëm ca loolu mukk te bul bul bul sàggan mukk mu ne nag melo murid bi nga xam ne ak murid dëggu na ci moom dëgg-dëgg bu ñu ko bëggee gàttal mu ne ñeent rokk la ñeent ñooñu nee na way na ko moom te Ahmadou Bamba bind na ko ci way mu ne asiq fi mahabbati cheikh abat moom tisaalu amrihi xaysu warat wa tarku li aftiraad mutlaqan walaw bi batinin alayhi fi ma qad rawaw ومعه طلب الاختيار لحسن ظنه بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقات mu ne melaw murid saadiq bu ñu ko dee gàttal ñeent ñi dong la nee nañu dëggu ci topp sëriñ bi te nay topp ndigalam ak fu mu ko mën a déggee te na bàyyi sëriñ bi wax wala mu jëf mu am ca lu muy seet donte ci biir xolam la woon itam am ca lu muy déng déng mu ne loolu nettali nañ ko mu ne it bu mu am lenn lu bëgg-bëggu boppam benn bëgg-bëggu boppam talabul ixtiyaar yi mooy bu mu am coobareel boppam loo xam ne lu muy tànn ak lu muy bëgg wala lu muy bañ mu ne loolu daf koy def boole kook rafetu njortam rek ci sëriñ bi mu ne képp koo xam ne ne melo yi ñu wax dajale nga ko ci murid yi mais da nga àgg ca gaañu mag ña fa ñu àgg danga fa àgg mu ne nag kiiraay li nga xam ne mooy yiir taalibe bi ba du àgg ci sëriñ bi maanaam ba du àgg ci yàlla maanaam ba du àgg ci texe nee na juróom benn ca sànn la yoo xam ne moom it bind na ko nee na te ci raay yooyu le képp ku bëgg a àgg ci yàlla war nga leen a muri mu ni ak li barik lekk kasratu siraabi ak barik naan su ma mulaaqaatul baraaya bi istihab fonk jaxasoo nit ñi di waxtaan rek mu ni bari wax ak bari nelaw ak sàggane tudd yàlla mu ne yooyu képp ku koy def ay ciiraay la yoo xam ne dana dox sa digg ak yàlla ba yoonu murid bi nga nekk doo ci am la nga bëgg boo sàgganul mu ne fa saadaqul muridi man yanqalibu bi hukmi waqtihi wala yartaqibu murid bi nga xam ne murid saadaq dëgg-dëgg nee mooy ki nga xam ne amul mébéti ëllëg jamono ju mu toll rek doomi jamono jooja la maanaam li fa war rek moom lay jëf seet ëllëg yoonam néewute ndax xamul dana ko seet cam déet te amul bëgg-bëgg amul bañ-bañ waaye du seet ci kanamam jamono ji ñëw mukk muy xalaat lan la cay war a def wala bu ñëwee lu muy war a am ak lu muy war a ñàkk nee na loola yoonam waru caa nekk ndax loolu day tax dootu war a gis ne sëriñ bi ci boppam waxtu wi nga xamee ne jóge na ci jàngale bi daan def xam nañ ne ak mi maamu anak tasali nelawee te fekk daf daan jàngale moo yoroon daara ja bi mu nelawee toogaat na at yoo xam ne mu ngi ci liggéey boobu ko Maamoor Anta bàyyee woon fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saafonte moom janloog moom jaxaran ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihum bi dersi sa taalibe yi na nga leen yar ci alhimma alhimma ci ahlu tasawuf ni ñu koy fekkee mooy sekkareb xolu nit ki àgg ci yàlla mu samp ko ci xolu fi mu bëgg a jëriñ ba fab cër ya not ko ci li koy tax àgg ci yàlla not ko ci li koy tax a am ngërëmal yàlla ak li koy tax a àgg ëllëg loolu mooy alhimmatu yonent bi ne ko na yar say àndandoo maanaam say taalibe ci himma jooju te bu leen yaree njàngale ba mu ko defee te bul xëy xëy benn bis rek daal di bàyyi njàngale mi waaye mu ngi tàmbalee di liyaar ñi nga xam ne ñoon lay jàngal di leen xamal ne am na leneen loo xam ne moo gën a gaa gën a gaaw a àggale nit ci yàlla moo gën a gaaw a jox nit ay may te moo gën a gaaw ci musal musal nit ci mbugal ci njàng mi léeg-léeg buy topp àlluwa bu yàgg mu ne ah lii de am na solo lool waaye am na lu ko gën a màgg bu ñu ko masaan laaj li ko gën a màgg loolu lan la mu ne xanaa fexe ba bu malaayika yi dee ante ci almalaw laala ngay dégg lañuy wax fexe ba bu xalima suñu borom ngay bind ca lawxul mahfuz ngay dégg ci ci jëma ci ci loolu moo ëpp doole jàng alquran ba wattu ko li muy baax baax ak li muy am am solo loolu fekk na booba ñi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu doon na nga xam ne suñu borom daf ko njëkk ne anzir ashirataka laqrabina na nga waar ñi bokk ak yow geño te gën laa jege nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam booba woote bi mu daan woote daf ko daan def ci yelu waaye yëkkateegul baatam ci penc mi sëñ Tuubaa it noonu la commencé woon di woote ndànk-ndànk ba keroog bis bañ ko ne fas da bi maa tuumaru ni nga xam ne noonu wax waxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran fas da bi maa tuumaru wa arid anil musrikiina nga xam ne sant nañ ko nag mu yëkkati baatam jahran woote bancaa seet dara woo jaam ñëpp jëme ci yàlla wan na leen moom la yàlla yónni moom it keroog bis ba loo xamee ne woo na taalibi yi mu daan jàngal yëpp xamal leen ne leen képp koo xam ne da àndoon ak man ngir xam-xam ma di la jàngal na seet nooy def bu la ñibbi gën a lee bu la wuti feneen fooy jàng gën a lee wala leneen koo xam ne nag li ma bëgg nga bëgg te yoon wi ma bëgg a jaar yoon wi ma jaar man nga bëgg a jaar nga toog ànd ak man ba mu ko defee dal di delluwaat te néegam toog taalibe yi dal di yëngu lool ñii di digle toog di ko digal seen i xarit ñii naan dañuy dem ñii wax seen moroom naan nañu dem coow li bari ñii dem ak a dikk mu ne parce que amul ci ñoom soxla ba mbir dal am kuréel bi a néew toog fas yéene ànd ak moom ci li mu nekk ci diggante boobu nag la xamle ci bayit yi mu way ne wa min ajaib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi baaqin adaa ardahu bi lawliya ila alqiyamati wa kullun waliya sunnatahu wa saana an bidai tabsiruhu xadimahu bi fasdai amarahu salla alayhi llahu fi l ali wa sahbi wa man walaahu bi an yuallima almuridina wa man yaqbal minhu nusa fi min ahli zaman wa annahu awsalahu an taxliya li rabbihi mubashiran bi taxliya mu ne bokk na ci kéemtaane doomi abdullahi bi te mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallama suñ boroom tasaare xéewalam ci sàkk ay wali yoo xam ne dañooy leeral suuf si nga xam ne duñ fi jóg ba yomal qiyaam képp koo xam ne yaa ngi bokk ci ñooñu leeral nga sunnaam moom Cheikh Ahmadou Bamba muy kenn koo xam ne ku ràññiku la bokk ci ñooñu le nga xam ne suñu borom daf ko tànn muy liggéeyal yonante bi mu di jagleem suñu borom waxanteeg moom ni mu waxantee woon ak yonante bi ci alquran ne ko fas da bi maa tóomaru mooy tabsiruhu xadimahu bi fas da'i amarahu sala alayhi laahu fi alihi wa sahbi man walaahu bi an yuallima almuridina wa man yaqbal minhu min ahli zaman kon mu daal di xam le ne tey jii la yëkkati nag ab wooteem ndax day jëmm joo xam ne dafay buntu yërmande yàlla suñ borom sàkk ko ngir na ma xeetali ay nit wàcce ko ci kaw suuf te sañu la nëbb boppam mu war a jëri boppam ba ñëpp yëg ko ndax lu baax jafe na te bu nëbbee boppam te yàlla sant ko mu feeñal boppam bu keroogee dana layoog ñi mu waroon a xeetali te xeetali ko ñu ndax moo nëbboon boppam muy nag bi nga xamee ne donn gi mu donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mat na ndax yàllaa ko matal suñ borom dolli ko ak guddug ñay ak kàttan ci xeeti xam-xam ak ci xeeti xikkam ak ci xeeti leer ak ci xeeti secret yi nekk digganteem ak boromam may ko kàttan gu tax mu mën a yen baawul wilaayati al kubra suñ borom digal ko ne ko fas daa mu dal mu dal di nag tàmbalee woo jullit ñi woo mbindeef yépp ne leen ngeen ñëw wéeru ci man ndax ngeen mucc te bu ngeen wéeroo ci man lu ma leen digal ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi ko loolu la wax ci bayit yi mu ne na nazaa man yafalu maa yasha al ulum wa yumnaha liya bi kawnihi alim suñ borom nocc na lii xeeti xam-xam lépp ba mu soob ko ak lii barkeb xam-xam mu jox ma ko man si Ahmadou Bamba mu ne xafistu ma sina an dafatri fala takun an xidmati bi fatri suñ borom def na ma wattu xam-xam boo xam ne màgg na tedd na foor na ba kenn du ko bind ci kayit kon boo may liggéeyal bul noppalu mukk bul tàyyi mu ne ah taaniyal muxti bi jaahil mustafa salla alayhi bi salaam istafa barakat al qurani wal ulubi wa qaad yumnaha ila taalimi moom aji joxe ji te mooy yàlla ci daraje ku ñu tànn jox na ma barke alquran jox na ma barke xam-xam yépp wommat na luy xeetu barke ko ci samam njàngale la ilaha illa allah nee na mbóoti laa ilaha illa allahu borom rocci na ko fol ko ci samay taalif mu ne nataali walaysa minni yanzau wa innani minhu ximanu mafzau dalika fadlullah yutihi alladi yashaahu wa qaala yaqul dillu di nee na borom nocci na ko jox ma te dootu ko nangooti mukk nee man ci coobareel suñ borom ci barkeb loolu ma defal aaruwaay laa boo xam ne ku ma aar nga mujj te buuruwaay laa boo xam ne ku buur jëm ci man danga mujj mucc te la nga bëggoon da ko am nee na dalika fadlullahi nee na loolu ngëneel ak lu ma defal la yuutihi ladi yasaahu nee na suñu borom ku ko soob la koy jox te maa ko soob mu jox ma ko wa qaala li qul li luzi nee na suñu borom ci boppam moo ne ma qul bi luzi neel ñëw leen jéblu ci man nee na suñu borom ko wax wa qaala li qurbi moo ko waxal boppam mu ne wa mabdaun fa man araada al xayra fi tilka daarayni falyan bi képp ku bëgg yiw ku bëgg mucc ku bëgg texe ci àdduna ak alaxira na wéeru ci man mu ne faasa muridun qaadahu llahu ila taalluqin bi lépp murit boo xam ne yàlla womat na ko ba mu aju ci man texe na te suñu borom dana ko jox cër bu mag faasa muridun lam la nit nii bi maa bihi yaxuusu xayra man texe na bépp murit boo xam ne bëgg na ma ba du yokkat ci man mukk dana texe ci li nga xam ne mooy ngën ji may mu ni faasa muridun laazal lii bi maa yafuuq maa dannahu billahi jaariya rafiq texe na bépp murit boo xam ne wéeru na ci man dana texe ci maanaam dana am ci lépp loo xam ne suñ borom mii sama aji dëkkaale jortu na ko te muy njort rafet lu mu ya jort ci suñu borom lépp lu mu ci jort dana suñu borom dana ko defal faddu woon dem fu sori mu ne sama borom dafa namoon ca azal maanaam ca qadim ma nekk di jëmm joo xam ne damay xettali jaam ñi damay nekk shafian li jami islamisati yi mboolem sama mu ni loolu moo tax moo xar xolub nasaraani def ci wóoloo di kuma def ci ragal ma mu ne loolu ci barke bi yonent bi sallallahu taala alayhi dafa bañ ma jàng jëm ci nasaraan yi ndax képp ku jàng jëm ci nasaraan yi boo nasaraanoo da dem safara te suñu borom nammul ma dem safara mu dox sama diggante ñoom doxale ak mbañeel suñu diggante loolu moo waraloon yàlla xiir leen ci jële ma fi ma nekk randal ma ci beneen béréb loolu mu ne moo doon sababu fàddu gi mu fàddu woon dem gannaaw gi nag ci diggante boobu la bindoon benn lettre boo xam ne ak laa biire la ci jublu jëmale ko ci mboolem murid yépp wax ca lettre ba ne salaamun tayibun yaasimul jamia min al muridina wal muridat wa yudxulu al jamia fi salaamati wal aafiya fi dunia wal axirati bi jaayi sayidi rasulillahi salallahu taala alayhi wa sallam nuyoo bii di nuyoo bu teey boo xamee dana musal mbooloo mépp muy murid yu jigéen wala yu góor dana leen musal ci lépp luy ayib ak luy mbugal te dana ñëpp ci mucc dana leen tàbbal ci jàmm àdduna ak àllaaxira ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne gannaaw loolu fa inni amartu kulla man taallaqa biya li wajhi llahi taala alkarim bi taallumi alaqaidi wa tawxidi wa ahkaami taharati wa salaati wa siyaami wa gayriha maa ngi digal képp koo xam ne aju nga ci man ngir jëmmi yàlla nga xam lu li nga xam ne mooy pas-pas yi ponk yi tawxid yi doomu aadama buy jullit war a gëm ak nga xam lu tawxid xam lu attey laab attey julli attey koor ak lépp loo xam ne farata ci biir lislaam ñuy sant ko jullit te mu war bépp mu kàllaf mu ni man nag danaa fas yéene bindal leen ay téere ay taarif yoo xam ne loolu lépp dana ne ca biir bu ngeen ko jàngee loolu lépp da ngeen ko xam ma di ko defit ngir jëmm yàlla mu bind beneen lettre boo xam ne ci lenn ci benn murid ci murid yi la ko bind muy tont loo xam ne lettre bu mu ko bindoon la di ko ca bégal mu di ko bégal ca tont la ñu ñaan barkeb tont loolu ak li mu ca wax royaatal ba dem ci mboolem murid yépp mu wax ci ne وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إنه قد جاءني كتابك أيها المريد الصادق فليتر ba agsi na ci man yow murid bi nga xam ne murid sadiq nga murid bu dëggu nga wa tayaqan annaka min allaaminiina inda ru'yatika kulli ma taxaaf minhu na nga wóolu ne ku yàlla muccloo ku yàlla wóoluloo nga waxtu woo xamee ne gis nga dara loo ragal na la wóor ne ku cay mucc nga wa inda xuruji ruuxika waxtu wu sa ruu jigéen sa yaram na la wóor ne ku mucc nga ku wóolu nga wa fi qabrika ci sa bàmmeel na la wóor ne ku mucc nga wa bi anna al malakayni saailayni yaarifaani cheikhaka wa yastaxniyaani bi maarifatihima cheikhaka ani tawajjuh bi suwaali na la wóor ne ñaari malaayka yi yi laaj ci bàmmeel xam nañu sa sëriñ te xam gi ñu xam sa sëriñ daañu ko doyloo ba duñu la laaj dara loolu lettre la bu mu bindoon muridam koo xam ne bi mu jógee waxtu ndawam la ba tey lu dellu ci sujet bi xam ngeen ne bi mu ganee àdduna ama sharaa dafa nekk ci kanamu ay waajuram ba bi muy mata dal jàng mu matee dal jàng mu jox ko nijaayam Mouhamad Bousso moomu mu amee woon ko jàngal ko tuuti jox ko moom it najaayam maanaam najaay ji jox ko najaayam moom it maanaam maam la ci moom ndax moom maam bokk ndey ak bàyyi di def ci mbàkke numbe ko jàngal ba mu miin ak ci la taj dana asad dana si kooku daal di gaañu di mu gaañoo diggante boobu mu dellu si ci waajuram jamono yépp ñu ngi saalu xam ngeen ma euh, Maba Jaxu tafsir Maba dafa fangoon waa réew mépp sëriñ seen ñëpp ci bi muy jaar ñu ànd ak moom te Saalum la génne àdduna jamono yooyu ñu nga fa bi mu jógee bi tafsir Mbàkke Numbe nelawee mu dem ci waajuram Maam Mor Anta Sali fa jàng fekk na boroom way wattu alquran ñu rafet alquran nga fa ñun ñëpp ci nekk dem na ci yow nga defal ko tasxeex di ko toppal maanaam diggante sëñ Ibra Binta ak yeneen sëriñ yoo xam ne ñu nga woon foofa te ñu wattu woon alquran ba mu wattu alquran bi mu wattu alquran mu daal di tàmbalee jàng xam-xam dem ci sëriñ euh, Cheikh Samba Tukulóor Samba bàyyi tax la ci moom ndax doomi yi euh, baayam la dina jàng xam-xam bi mu doon jàng di ko jàng ci moom fekk na nag jamono yooyu bi ma ma ba nelawee sëriñ si yëpp euh, dellu si nañu ñu dellu njàmbur ñu dellu Kajoor Mamour Anta Sali dellu naa kajoor booba la Lat Joor nekk kër Amadu Yàlla Maamoor Anta Sali nekk Mbàkke Kajoor di nga Sëriñ Tuubaa am continuer di jàng foofa di jàng ba yeewu lool mu dellu siwaat nag ci waajuram ci Mbàkke Kajoor nekk fa nag di jàng di jàng di jàng jàng na fa ci baayam lu bare bare bari jàng tam ci ma jaxate kala daanaka xaar yi kala daana ko leeralal ndax ku xamoon arabiya la daana jàng itam ci Cheikh Mouhamadou Yadaali lii moomu nekkoon njaañ diggante balaaxa ilmul balaaxa ak man mantiq dana ko fa jàng bi nga xamee ne daal jàng na ba nga xam ne tubaarkàlla njàngam daal doy na waar muy jàngale bi mu dee jàngale di jàngale di jàngale bàyyam bàyyi ko daara ji ci diggante boobu itam la versifié maanaam la woy téere yu bari yoo xam ne diggante bidaayatul hidaayati bu imaam al-Xasaali boobu nga xam ne moom la waaye muy mu lay yinu sudur gannaaw bi mu gàttal ko def ko mu nawiru sudur ak téere limaamu Sanusi boobu xam ne mooy umul Barahin ak yeneen téere yu bari mu nose ko nga xam ne Maamoor Anta ci boppam daana fab téere bi nga xam ne Sëñ Tuubaa ko bind di ko jàngal ay doomam mu ngi ci loolu ba nii nga xamee ne Maamoor Anta Sali jóge na Mbàkke Kajoor ñëw bi nga xamee ne Maamor Anta Sali euh, euh, Lat Joor jógee na kër Amadou Yàlla ñëw Sugeer moom it mu ñëw euh, jógee fekk na booba mu ngi nekkoon ci dëkk bi nga xam ne moo dend ak kër Amadou Yàlla ndax daawul nangoo bokk ak Lat Joor kër bi mu nekk bu daawul daawul nangoo bokk moom dëkk ndax jàng ak jàngale mun laa ànd ak ñooñu dafa fekk na rek bu ko daan soxla nekkoon na musaawiram nekk sëriñam di ko ubbee di ko yee di ko defal li nga xam ne moom la sëriñ defal taalibeem waaye daawul nangoo dëkk moom ci benn dëkk bi nga xamee ne ñibbisi na sugeer moom mu ñëw Mbàkke Kajoor diggante boobu Maamor Anta Sali ñaari at la fa am daal di nelaw mu toogaat fa at ak ni mu fa toogaat di ñuy ci li nga xam ne ci la nekkoon bi si Maamor Anta Sali nekkee di jàngale ba li ma waxee woon tànk bi muy wax te ku ma toppoon ngir jàng man ngaa seet na nga def ku ma toppoon ngir jaar ci yoon yi ma jaar nga toog nu bokk ci ànd bi mu wanee li nga xam ne mooy li ko boroomam defal ba sant ko nit ñi war a topp ci moom ngir xettaliku bi ñu demee ba nga xam ne biir na ñooñu ànd ak moom ak ñu àndul moom ñëpp loolu biir na leen ba nga xam ne xam nañ ne kéemaan la bu suñu borom wàcce jóge na foofu ñëw Mbàkke Bawol am na fa ñaari at yoo xam ne diggante boobu wëndeenu na ci di siyaare wàllu yi dem na gànnaar wër na réew mi wird yu bari jëg na leen ziyaar na yu bari ba dellu si ba ci diggante bi nga xamee ne gannaaw moom am na ay xew-xew yu xewoon digganteem ak Lat Joor am ay xew-xew yu xewoon digganteem ak sëriñ si ñi nga xam ne ay mbokkam lañu ba tax na muy nit koo xam ne ni nga xam ne noonu la suñu borom nit ku mu nam ma jaarale ca yoonam ba lépp lu lay yàqal dana dox sa digganteeg loola bu dee nit dana fexe ba dara dox sa digg ak nit kooka ba doo jaxasoo moom xam ngeen ne jamono yi nga xamee ne woote na loolu ba njëbbal yi bari am na koo xam ne ci kàngami Lat Joor la woon bi mu jébbalu see fekk na mu amee woon ay jaam yu mu jëlee woon ci xare Samba Sadio bi mu bi def ne ko jaam yooyu nga xam ne da ngeen koo jëlee ci xare Samba bi nga xam ne Ahmadou Seexu lañ ci doon xare xeexal Lat Joor ak tubaab bi ba ñu dàq ba ñu rey ko jaam yooyu na nga moom na ko bàyyi yàlla ndax deful asaka ajiwul màkka te du alal bi lew ba nga xamee ne koo kooku tàggale naag boppam jaam ñooñu le moom kàngamu Lat Joor boobee mbokkam yi nga xam ne ñoo bokk ak moom nekk ci pays ba benn bis dañ koo woo di wax ak moom ne ko yow day dañ laa woo ci ndabal teraanga nga bokk seen ba mu yàgg nga jóg sa lëx suuf ci ndab li dem sa yoon loolu am lu ko waral dañ koo léebu mu ne leen li ngeen gis day li ko waral man a weñama carax carax bu metti boo xam ne xamatuma lu def bi may jóg ba suuf si dal ci ndab li teyuma ko bi may dem itam xamatuma dama demee maanaam misaal na leen ne léegi damaa yëg lu ngeen yëgul damaa xam loo xam ne dugg na sama biir xol ba moo ma gën a li ngeen nekk ba loola lépp lu ma mën a tàggalee moom danaa wacc loola te lépp loo xam ne dana tax loola gën a dëgër ci sama xol ba ma àgg ca fa bëgg danaa def loola ba mu ko defee ñu daal xam ne ah fii mënatuñ ci moom dara ndax li murid bi dugg na ci boppam taalibe gi dugg na ko ba kenn mënu ci moom dara mu bàyyi dañ ko defee Lat Joor ci boppam di fexe na mu gisee Sëriñ suubaa ba waxtaan ak moom ci loolu ndax Sëriñ see ko ubbee woon ne ko jaam yoon dagan na di ko bind ak di ko yónnee Sëriñ Tuuba itam dañu ndaw lu mu yónni mu yónni leneen lettre bu ñu ko bind mu tontu ko rek waaye du ñëw ba lettre ba ca mujj Sëriñ Adama Sàll moo ko yóbbu la mu wax ca leetar ba fekk leetar ba njëkk daf caa bind ne ko rus naa malaayika yi suñu borom yi di jàlloog man may jéggi samay jéego di jëm ci buur bu dul yàlla leetar ba mujj te sëñ aadama sàll yóbbu ko daf caa bind ne ko yow buur bi da xam ne Muhammad ibnu Maslamata nee na aalim ci buntu buur mi mel ne weñ wu takk ci kaw ay jëm aajatu ba leetar ba àggee xaalima jaxate la ñu jàngaloo lettre bam ba mu jàngee ba agsi ci loolu dal di jalu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ba mu ko defee Lat Joor ne ko ah waaw loolu lu mu xanaa wa xale bi dafa wax lu rëy rëy mu ne ko man de wax na ma lu bon mu ne ko li la wax lu mu mu ni nee na alim ci buntu buur mu ngi mel ne weñ wu takk ci kaw ay dem àll ba mu ne ko déet man kay man la wax li gën a bon ndax yow weñ wi la la def man la def man maay dem dem kaw yi fii nag moom naka naka lañuy ñuy gisalanteeg moom ah xaaju ma jaxati ne ko ah xanaa bàyyi ko rek ndax lu yàgg-yàgg moom dëgg gu wér la nekk te kenn feesul bëtam te déer la lu dul yàlla kon nag ku bëreeg moom yaay daanu te ku mu daan danga am gàcce ku ko daan nag da am naw lu rëy waaye mënees koo daan la jor ne ko ah waaw kon nag nee ñu déeg janj bi tee góob nañ ko bàyyi yàlla dogal ca dogalam ba benn jëmmi bis la jor ci tukkeem jaar ci dëkk bu jege fa Cheikh Ahmadou Bamba nekk booba demagul Daaru Salaam mu daal di di gën a ànd naag xaalima jaxate te xaalima jaxate jàngal na ko te téere yi dañu mën a àllamaka xarfan fa huwa mawlaak gannaaw loolu xaritu Maam Mor Anta woon te téere yi dañu ne min abarril barri an yaburral waladu ahla wuddi abii bokk na ci gën jaa teral sa kilifa doom mu fonk xaritu waajuram loolu tax sëñ Tuubaa jóg ngir siyaare ji ngir nuyu ji ma ka la ba ma àggee nuyoo moom ba noppi ma nga toog ca suuf nangu la toog ca yi ñu lal ah ba mu toogee ba bëgg a dem ne ko man de dama la fee déggoon rek yow xaal yi moo tax ma ñëw di la nuyu si Lat Joor dal di dellu xelam xam ne dafa bañ ñu defe ne moom la nuyu si moom Lat mu daal di nànd loolu mu daal di wokk xaa bi ma jaxati ne ko waaw ñun kat sunu mbir moomale woon gannaaw bëggoon nanoo gis fii mu tënu tey nag gis nan ko ka la nan ko nan waxtaan ak moom mbir mi xaa ma jaxati ne ah waaw yow de am na lu ñu la bëggoon a laaj ndax gis nanu sunu mbokk mi ñëw ci yow li ñu ko digal te nun jaam yooyu nun danu ne dagan na ndax waa ji ñu rey dafa woote woon ak nubuwa maanaam prophétie ak yonent dafa ne woon yonent la muy Cheikh Ahmadou Seexu te kon deretam dagan na alalam dagan na nun sëriñ si nun ñëpp loolu lañ ubbee woon yow lan nga ci gis mu ne ko waaw ndax am nga seede yu wér yu diine nangu ci ne Ahmadou Seexu woote woon na nubuwa mu ne ko waaw mu ne ko ñan la mu ne ko waa Kajoor mu ne ah déet waa Kajoor mënuñu koo seede di ndax ay xusumam lañu maanaam ñoom ñoom lay xeexal te noonu du seede noon mu ne ko ah waa Samba Sadio mu ne ko waa Samba Sadio ñoom xamuñu ci dara yëguñu mbir mi du dul xare bi sotti ci seen kaw ñu jóge fii ñu jóge fii rek ci seen kaw ñoom xamuñu ci dara wax ma yeneen seede waaye li seet seet xamul benn seede mu la ne ko yow daal suñu doom nga doon nañ la tegtal yàlla léegi yaa nu gën a xam yàlla bu nu fàttee te di ñu ñaanal mu jeex ba mu dëddee di dem ba mu dëddee di dem mu daal di xam li nga xam ne moom la xaalima jaxate wax ak ni Lat Joor def mu wóor ko ne ñii ñoom lu yàgg yàgg séddoo naa ñoom yóbbal luy jëm ci ñoom ci moom ci jamono yooyu ci lu jub dañ cee defuk njàmbur luy jëm ci moom ci lu jubul daañu ci gàttañ lu mu seet ne itam sëriñ si amoon na ñoom moom itam xew-xew ndax ñeenti at yooyu jóge ci dale ca Assassine ba foofu muy sañ ci tuubaa wëndeelu na fi dem na fu bari wër na réew mépp bàmmeel bu fi mat a siyaare siyaare na ko bu fi borom xam-xam wala ngay borom mbóot gis na la mbooleem du bu fi nekk jàpp na la ba sikkar la lu yàgg ku yàlla defaloon wërsëg loola nit ñi yàlla daf koo nataloon xol yépp ñu di ko sotti alal ji kenn xamul nu mu toll te soxlawul ci dara doomu aadama yëpp bëgg ko ndax yi daje ci moom muy xam-xam bu bari bi jub gi maandu gi njëriñal àdduna li ci tawe gi ak laa gi loolu tax turam daj këpp réew mi ñëpp di ko waxtaane ñëpp fonk ko ñëpp yëkkati ko ñi nga xam ne nag ñoo demee woon ne moom te di ay mbokkam ñoom it loolu tax ñu xaw a am lu njëkk ci seen xol tuuti ñu xaw koo sori ak sori mu gis nekkoon ci ñaari wet yépp muy sëriñ si muy ceddo yi ñu ci nekk am nañ wet buñ ko féete mu daal di ne wa ufawwidu amri ila allah inna allah basirun bil ibadi joyal naa sama mbir ci yàlla rek yàlla moom mu ngi jàndoog jaam ñëpp daal wakkilu ci yàlla rek ah fekk na waxoon nañ ne sëriñ si moo ñoom bis ba njëkk mooy dinaa mën a ëntasali nelawee te altine bi nga xam ne mu ngi toll ci bis bëgg a jógee mu toog ci boppam wàcc fa kaamil bi muy bisu altine ci guddi bi mu nelaw ci suba set bi ñu ko yóbbu deexale daf caa àndoon di dox ak ñaari tànkam fas wu ñu ko bëgg a jox mu bañ di dox ba àgg ba mu àggee ci jiite jullee ga mu di sëñ tay ba si ma dumbe marti la ba mu jiitee ba noppi waare na fa ndokkeel dëfal maanaam sax ndoxteel dëfal mu daal di koy jagleel moom Cheikh Ahmadou Bamba ak dëfal boppam woo ko fekk boobu nga ca catal mbooloo ma mu randu si bay dégg li muy wax nanguwul a jéggi mbooloo mi ndax jàppewu ko ne loolu teggin la mu ne ko dama bëgg bu jógee fii mu jubal ca Lat Joor bu ñu demee mu jaale ko dëfal ko ndax xaritu sa bàyyi la woon lool dénk la ko itam mu féetale ko fam la féete woon bi ma àggalee mu ne ko waaw léegi de dégg naa li nga wax dégg naa ci maa ngi lay sant ah dem jaare bi nag lu rafet la waaye nag naan di ma ko dénk ak muy féete ak man ak di ma féetale fenn moom du ma ko def du ma man muy njëriñ muy lor muy teraanga muy lu mu doon féen mu ma ko lu dul ci yàlla donc séenu ma ko ci keneen loolu ci gone ko am ñaar fukki at ak juróom benn rek kilifa yi nekk ci bëggoon ñu féetale leen loolu te ñu ko am ay borom xam-xam ay mag ñu ngi dal di séddali ko foofu ñi nga xam ne eh, nit ñu xelu lañu te xam yàlla loolu rëy ci ñoom lool ñu yéem ko yéem bu jaax bu doy waar ñu nga xam ne adduna rek la ñu xooloon nit ñu dal di jàppee ne kii de kii wax nii daal kii delloo jiitaraa nga daal ak nitam moo des loola taxoon mu tontu leen ñaari xasida yooyu xaalu li yarkan li abwaabi salaatini ak xaalu safihun li sarfi anhumu basari kon gis nañ ne ci jamono yooyu nga xam ne mu ngi euh, bàyyi ko foo fecca Lat Joor ak Xaalima Jaxate ñu xam ne kon léegi mën nañ ne ci nit ñi kudul taalibe yi jublu jubluwoo ko ak jàmbur ñi nga xam ne xam nañu ni mu mel ak ñi nga xam ne dafa dëkk ci di leen fajal seeni aajo rek ak ñi nga xam ne lu ñu jaaxle laaj ko ko lu dul ñooñu waaye mbokk yi ak li jëm ci wetu tedd yi ñoom wan nañ ko gannaaw loola nag ba mu ne wa ufawwidu amri ilallaah inna allaaha basirun bil ibaadi fekk diggante boobu le siiw siiw googu xumb xumb googu diggante boobu taal noonu dogu googu mu wone taalibe yi la nekk ñoom moo gën a doyati kéemaan jamono yooyu ñu ngi yéeg nga gis taalibe buy yéeg ba ci njolax sanal garab mu jiital boppam daanu suuf faxas jóg ñiy taal sib ba mu tàkk ñu dugg ca biir ba mu génn ñu faxas jóg ñi baxal satala teru ko naan ñii di dóor seen bopp ñii def mu nekk xasida ji di jolli ci pénc mu nekk mbedd mu nekk yoon wu nekk ñi ci def ñi ne du fi amee di leen dóor di leen gañ di nangu seeni alal di giir seen kër di leen génne loolu lépp teewul ñu gën a takku gën a wóolu gën gën a gëm muy tabaxee yomb ñoo xam ne moom la ñu waxoon muy sacrifice wépp wax ko xamee ne dellu si nañ ci sëñ bi ci mbir yu tiis muy xupp leen dellu ñaax leen wan leen ne da ngeen a war a wékki seen fit ak seen xol ak seen xel teg ko ci saxaaba yi li ñu def saxaaba yi moo gën a metti li ñu leen def te mosu ñoo dellu gannaaw di leen wan ne la ngeen bëgg ku ko bëgg mu waruñu laa mën a def dara ci àdduna loo xam ne lii dana la tiis wala dana la tax a war a yokki saxaaba yi lépp lu ñu leen def def nañ leen lu ko ëpp te dañoo gën a takku gën a dëgër gën a nekk ci yàlla ba mu ko defee waxtu lépp woo xamee ne jóge nañ ci sëñ bi seen xol gën a dund gën naat gën a fees ñu gën a mën muñ ay xas gën a muñ ay dóor gën a mën muñ lépp lu ñu leen def loolu di taxiya boo xam ne ñoom murid yi njëkk yi def nañ ko ñii nga xam ne kenn ku ci nekk gannaaw euh, temps bi moom dafa matewul te sëñ bi sëñ Murtala am na kàddu yu fi bàyyi woon yu war a jot te suñu mbokki naar yi am na lu ñu fi war a liggéey te am na kàddu yu jóge ci sëñ Abdou Lahad lépp bëgg a daje jamono bi dana xat xëy na waxtaan yi luñ ko bëggee woon am na lu des ndax sax danaa leen ko wax ci conférence yu bari yi may ñaan ak sujet yu bari yi jaxasoo dama jaawale woon sujet bi ba traité beneen sujet beneen mawdo da bi ma ñëwee fii booba bi ma agsee ci biig loolu laa indi sëñ Maxtaar Njaay moo fa ñëw ci guddi wan ma nag programme bi ma gis ne beneen sujet bu bokk nag jiwoon bi ma xëyee itam aw ma genn yaatu mën a traité sujet boobu ñu ma laajoon ah, loolu itam bokk ci rahmatullahi wa barakaatu قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع لجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو لي الدهر مفزع علي اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بعزبك يا من في الخلائق يشفع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وعرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وثمجذع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترضعون علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء اضطرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع عفوت عن الأعداء اضطرا لوجه من سرمدا نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع ظلالي الصفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ بعيدا من غير لقيا تشظظوا أذدت لدى العداء قبل مجاهدا أخاطب من عني العدا كان يطلب غور رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشظظ أوفرت بالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ غميت وجئت البحر في البحر خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفظ ظلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى لدى البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ ولا مي جلاه المنتقى قبل فانتفى هذا البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ في معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى صار يدعظ رمت احتوائي كلما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهض وماء لي ينحو المقفى ظماء من روض بإطعام وبالبشر العظيم ظلام لي ينحو لما حين ظلام من ينور قلب من والرين يعكظ زور السحاب المنتقى ليصونني وينحو إلى الأعداء مني تحفظ عبور الصعاب المنتقى ليصونني وينحو إلى الأعداء مني تحفظ العليم إلى جنات باق توسعت وكلي ومالي صالحا من مشفظ يقيني إلهي وهو كليتي يحين بجاه رسول الله من نهجه أحيي هي دين ولساني موفدي وجثتي حماها إلهي عن أذى ماعيا غيين يبث امتداعي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا لذي اهتدام عليه صلاة الله ذي العفو والهدي يسار النبي في خفايا لذي اعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي أيجاوره كل خديما له به بيسط ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والصحب سرمدا ولإيقاظ السر أن غاب عن غيره المحيي يصلي بتسليم عليه بآله وأصحابه باق به فزت بالطيب يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقنين الكريم يخاطبني ما قيد لي بمدح أنه مديحا عجيبا مفعما فائق الرئيم يقول لسان الحال لي كن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا الرعيم يقيني إلى الجنات باق يحبني غداه وبالمختار كليتي يحيي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه الحروف بشارات الباقي ملكت بربي مخجل الموج واليم بمدح الذي أنسى أذى الفلك كالغم ملكت بربي مخجل الموج واليم بمدح الذي لكي أنسى على الفلك كالغم ملكت بربي مخجل الموج واليم بمدح الذي أنسى على الفلك كالغم ملكت بربي مخجل الموج واليم بمدح الذي أنسى على الفلك كالغم ملقت بربي مخجل الموج واليم بمدح الذي أنسى على الفلك كالغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مزاياك يا كل لي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه معجبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم محمد المختار محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم الحكم محمد المعروف ماع ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث